waaw contentement ak euh, euh, gërëm bu baax jeunesse bi euh, final bu neex lañ lañ lañ seetaan final boo xam ne ñaari équipe yi ku nekk yaa ngi doon football football boo xam ne dama doon wax sax ne lii xanaa du du niveau nawetaan ba pare ñu def ko nag si fair play même si ñëpp xam na ne derby la ñaari équipe yi pratiquement si même quartier bi lañ nekk c'était pas facile mais ku nekk si ñoom respecté nga consignes yi lañ joxoon mooy ne final fête la. nañ ànd ñun ñëpp ñu ñu joxante loxo ñu joué ko comme niñ ko joué tey ku fi ñëw tey sa xol kontaan na euh, fête bi neex na ñuy gërëm bu baax nag sunu collègue maire yi nga xam ne ñun ak ñoom benn la ñoo bokk lépp muy le maire de Saly sa disponibilité ñu ànd ak ñun ba si commencement ba fin le maire Fallou Sylla li nga xam ne moom laa wuutu ci kaw euh, maire Mbour bi moom tamit mu ñu ànd ak ñun ñu koy gërëm bu baax di ko sant ci grandeur d'esprit bi mu àndal le maire de Sandiara ak yeneen maire yi nga xam ne yëpp ñëwoon nañ tey ji ànd ak ñun si fête bi fête bi feetu jeunesse bi la feetu Mbour la feetu département de Mbour la euh, moo tax euh, nii mu demee nii noonu rek la manoon a demee mooy xol yi ànd ñu def ko si jàmm euh, le meilleur a gagné l'autre également n'a pas démérité donc ñuy ñaan suñu borom yeneen final yi di ñëw gën a neex même si finalu ren bi moom xam naa ne pour pour dépasser ko maanaam si contenu dina xaw a jafe mais ñun suñu défi mooy chaque jour euh, encore un peu mieux donc c'est ce que nous Le budget 2023 c'est le budget jeunesse Le budget sport parce que déjà pour 9 c'est subvention globalement de 100 millions Nous millions million. loolu nous euh, li réservé pour les trophées. municipal bi ku première phase def nañ si 66 millions ñu ngi koy exécuté te si budget 2023 bi inscrire nañ 250 millions pour entamer deuxième phase bi loolu tamit jeunesse moo ko moom stade bii ñu nekk muy Caroline Faye ku nekk xam ne ne def nañ si lu bëri pour mu mën a tey ji abriter ay final ba heure bii ñu fay football si condition yi baax dinañ continuer di ko defar parce que sat warul nekk rek ñëw pour jouer football dem sa yoon dafa war de vie comme ni mu ko commencé nekk fii boo fi ñëwee tàkkusaan nit dafay ñëw doxantu fi ñëw toog waxtaan xool ay mbokkam gis ay moroomam après de dañ continuer daal modernisation boobu ba nga xam ne cadre bi dina gën a baax pour équipe yi nga xam ne ñoo koy ñoo fi évoluer ASC dina leen fekk ba seen biir quartier yi les terrains de quartier dina leen aménager on a inscrit 66 millions pour seen terrain yi ñu aménager ko def si ay rideau de file mooy def si ay mbaal yoo xam ne bal yi dootul demati si mbedd yi dootul demati si kër yi bu ko defee ñoom ñu mën a di ba def si ay projecteurs solaires ñu man di si football guddi ak bëccëg bu ko defee dinañ mën si seen biir quartier yi gën a évoluer am épanouissement bi nga xam ne ñun moom lañ bëgg si ñoom. Euh, budget 2023 budget jeunesse bi la budget sport la li mu wax nii mooy ñu jël si football waaye ku nekk xam ne ne stade euh, bii basket bi nga xam ne moo nekk fii si stade Caroline Faye rek def nañ si 150 millions pour defaraat ko ba mu baax def si ay tribune ba nga xam ne à côté du bi nga am CDEPS. fii tamit dina fi amaat stade basket boo xam ne day remplir toutes les conditions stade euh, handball bi nekk fu ku nekk xam ne defaraat nañ ko def naa fi nekk peinture rek tegaat kii moom moo ci def dinañ continuer daal fexe ba jeunesse bi ku nekk discipline sportive bi nga choisir nga am cadre bu baax boo ko mën a defee si nu mu gën a rafetee te loolu nag incha allah ñu ngi leen di jox rendez-vous si 2023 bi dina leen si sori bu baax.